محمد السلام عليكم لاي مختار لاي ñu ngi leen di ziar di sant yàlla di julli su yeneen tam bu tedd bi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam di ñaan sama borom mu yok leeram yok martabam yok darajam ñaan yalla mu yok wote baylay bi mu ag penku ba saw jor ak càmmoñ ñepp degg wote bi di julli seenen tabi sayidina limal mahdi alayhi Salam di nuyu xalifaam bu tedde bi serif abdullahi di ñaan yalla mu yok wéram yok fanam yok Katanam yokk ay xéewalam ba mu law ci njaboot gi yépp yan yàlla dolli dimbali képp koo xam ni yaa ngeeg ngëmug bàyyi laay sallallahu alayhi ci kaw suuf yan yàlla dimbali nu ba sunu ngëm rafet nekk ka libaas ñang waye ni mu waxee ni rafet ngëm jëm ci bàyyi mooy kiy jéemaroy jikkoom mu ni jëfe yiw waxe yiw maandu mu ni moo gën ci taalibe kon la nga say jang moy leneen li dafa daf ka def waxi nopp waxu kon ñaaw ngeum amna bu waye rafet ngeum rek ñaaw ngeum amna kon yalla bu nu bok ci ñi ñaaw ngeum yoy nak mo waral waxtaan yu mele ni moy waxtaane diine ji ndax bu ay jam yalla ñewé ci ndigelu sunu sëriñ sayidina limamu ngir ñu waxtaane bisu judduk maamam moy judduk sayidina limal mahdi alayhi salam ñukay wax nisfu sa'ban nga xam ni waxtaane ka damay wax ni moy waxtaane diine ji ndax juddi gi mo waral lepp ndax bu juddi gi amul won leneen du fi nek ñukay nak ngir nit lu nu rek yalla mën na dogal ñun ñepp ñu xamando solo si suñu xamee solo si la say njariñ dootuñu rëcc ñun ñëpp dinañ si góorgóorlu ndax góorgóorlu si bis bi dina tax ñu góorgóorlu si yeneen bis yi day tax nag ñu góorgóorlu si semaine bi tax ñu góorgóorlu si weer bi tax ñu góorgóorlu si at mi tax ñu góorgóorlu si dund gi ba sulu parafet bu nu taxawee bàyyi la yàlla na fekk ñu am ngërëmam ñuy waxtaan nag ni bis bu mat a fonk la muy juddug Mahdi alayhi salaam ndaxte dafa judduwaatam la ndax démb yàlla da ko yónni mu juddu fa ba ni mu màggee ba woote ba na mu génnee àdduna sa 63 ans dellu la mu jàngale woon am luñ ko yokkal am luñ ko wàññil am luñ ci des ak yo xamni ni sax faté nañu ko ñewul ku mel nonu bu ñewatul kenen kan moye régler problème bi aduna bo xamni ni fukki jullit dinañ taxaw di julleendoo te kenn du bokk ak sa morom na mi jullee te kenn ku si ni yonente be ka jangal am ku si joom ay jullit ño xamni ni bu ne japp na sa bisub laylatul qadr tammi ben ki da kay japp 27e jour kee jàpp ak àjjuma bu mujje te muy benn bis am na ku ci juum bu limaam mu ñëwul wax nu ban bis la ñun ñëpp ay pertandoo di nga fekk fukki jullit ci jamono jii te dunu nuroo na ni woore dunu nuroo na ni jàppe dunu nuroo na ni sangu te lépp doon jàngale yonent bi looloo waral nag yàlla ni ko sama waa ji faw nga dellu wala olof di wax tunga ne du teew ñuy natal bay lay mon nak moy ñew lu non nonu la rek muni nonu la lu dul nonu rek muni du ni kon lolo waral wat bi ndegam juddu bu jekk ba nak nga xamni mom lañu bok ak aduna lañu fonk aduna fonk ka ba am na ñoo sax def nañ ko seen biru bop muy lu am solo dama ni la bu fekkee àdduna fonk nañ juddu gu jëkk googu ñun judduwaat bii nga xamante ni daanaka ñun rek lañ ko jagleel ndax ñi xam ni yonte yàlla Mamadu moo dellusi fii doon Seydina Limaal Mahdi alayhi doomu Alassane Dieng kumandoo yi ñu néew la ko yàlla jagleel kon lu nit ñi fonk juddoom bu jëkk bee benn yoon ñun war nañ ko fonk juddu ñaareelam bii junni yoon ndaxte judd gi moo ëpp doole judd gee neexul dégg mais alxuraan moo ko wax walal axiratu xayrun lakka minal ula mu jëntalam bii mu ëpp doole njëkk ga moo tax sunu maam tafsir Abdoulaye Diallo yal na yàlla yokk leeram yokk màttabam yokk darajaan ba muy way sa wayam yooyu nga xam ni keroog ba mu àndeek Seydina Limaamu alayhi salaam yéeg ndax li baax ña ngi wax nag Momadou démb dafa riñaan fa màkk ba njool ma jàlloon na waaye fii mu dellu fi jànka dem faati keroog Ablaye jàlloo la la defoon waruwaay Ablaye jàlloo am na yu mu dégg sa kaw ba mu ñëwee daf ko way bind ko téere la ma si amal solo rek mais ba la mu wax sa miimu ñaareel ba waxu ko sa miimul benneel ba nee na miimu ñaareel gi parce que mooy tekki juddug ñaareel bi nee na magasin yu leer yi fa yàlla denc kon juddug ñaareel bi naka laayee ngi jox gëdd dara nag du si hasard ndax bu nee judd ga ñu ne kañ la ñu ni quinze nit fu saabaan weer bi la jël mu ñëw juddu sa digg ba muy quinze fukki fan ak juróom ci saabaan baat boobu rek daf lay wanaat ngëneelu Seydina Ali Muhammadu alayhi salaam ndax dafay faatixa daf feeñ te faatixa moo gën ci téere bi baqara ba naasi baqara deux la faatixa du moroomam Ali Imran deux cent versets la fatixa dooramu loo fa mën ti jël si si suraat fatixa la man moo gën quinze yi dafay feeñ parce que fatixa boo ubbee téere bi mooy première suraat mais chronologiquement bi muy wàcce mooy cinquième suraat da ngay gis quinze ni mu taxawee foofu moo tax am na góor gi yax yël yi daan na wax ni bàyyi lay mooy fatixa kon sunu Seydina Limaamu alayhi bu ñëwee ñuy célébrer bisam bii nii waxtaan bi du dara lu dul ñu fonk ko xam ni mooy dund gi parce que faatixa moomu fii rek la Seydina max di alayhi salaam ñëw jëfandikoo ko nim mu ko war a jëfandikoo fii la ko jullee mais laataa mu koy jullee fii la ko jàppee waaye fii la ko sàngoo waaye fii la ko tase bi fii la ko wirde nga xam ni loolu yépp moo tax man leen bis bi tënk na dund gi miim ñaareel googu ma la doon wax boo demee si alxuraan ba mu jàngee faatixa ba pare rek bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala daalin amin rek yàlla dafa ni alif laam miim mu ngay dugg sa baqara mais anamu pare na si faatix rek ni alif laam miim parce que yàlla dafa lim foofu ñetti leetar yi nga xam ni moom la ëpp li mu tudd ci faatixa bi mu jugee noonu ndax alif ba ñaar fukki yoon ak benn la ci faatixa laam gi ñaar fukki yoon ak ñaar la ci faatixa waaye miim gi moo tax tafsir si Diallo yal na yàlla yokk leeram miim gi nag xam nga ñaata la ci faatixa quinze juddu bàyyi lay gi Chaban le quinze Chaban mille deux cent soixante ñu moo tax boo ko bindee rek dafa mel ni ku ni al miim mu mel ni ku joxoñ miim gi miim googu boo ko bindee miim son bi boo ko bindee miim yaa miim quatre-vingt-dix la lay jox muy almahdi waa mag ñi bàyyi ko fi nga xam ni luy xew si diine ji alxuraan lay dox diine ji si alxuraan lay dox سيدنا علي عليه السلام جننا دم ما كني نك في كن ديغو نيو سيل نيو سيليبريك نيو باي كفي با اب ستم بوني واخ ابراهيم نيو تخاول بيس بي ñeneen ñu du ñe du du ñàkk kaa xam mais alxuraan ji diine ji doxe moo tax ibrahima ka war a tax wax